صلاة الذي في كل شغل وفي سفر حماني على ماخ مخ الخبز والسفر yi bépp ci jëkk mooy fii mu dëkk résidence bi mu am njaareem gis ngeen ko ni mu mel Sénégal gépp résidence bi mel noonu amul te xam ñëpp xam nañ bi bi fi ñu ko njëkkee dëkkloo mooy pantre bu sosu ne woon ci école français bi nga xam booy génn xam ne pantre bi sëñ bi sax moom xaju ci waxuma la ay bagaasam ñu dëkkaloo ko foofu ne ko bokk nañ charte yi itam doo génn autorisé wu génn ñaareel bayit mooy li ñu la mayoon ñu lay visité ci ci ceyeen dañ koy wàññi sëñ Tuubaa ne leen xawma lu ngeen may jox waaye 28 personnes yi may jàngal alxuraan bis bu ne moom mënuma leen a ñàkk ñu daal ne ko léegi kon daañu la may 30 personnes 30 personnes dem dañ leen takkal badge bo ci da dana door ba ray la xam tay ji par exemple Sidi Saw tay bu ñewé bëgg ziaré bi man jël sama bat jox ko dem Sidi nek ci bi ba ërëm jot bu dem delloo sama sama bat yi non lañ doon def pour mëna ziaré siyaare sëriñ bi biñ nekkee jaareem légui nak sëñ Tuubaa benn guddi yonent bi alayhi salatu wassalam feñu ko ne ko fi nga nek du dal du dal bi way bi mi ngi ci kanam bo doxé nangami jéego di nga gis ak lèr fofu moy kër gi xey yor yor doxi ba fi kër gu mag nekk mu gis leer gi mu woo Cheikh Ibra Fall mu defal ko fa mbaaram nga tax mu nekk fa tubaab bi bi mu demee mën naa ci tàng mu ñëw di seeti sëriñ bi fekk ko fi léegi mu ne ana marabu ñu nga ah, moom la génnoon na jaar nii mu ne moom warut a génn xanaa xamul warut a génn daal di daal di koy topp tànkam ba fekk ko fii fi kër gu mag nekk mu ne ko jógal yow waxoon naa la waroo génn jógal sëriñ bi jóg mu tas mbaar mi jaxas daal di koy yàq sëñ Tuubaa delluwaat ci ab dalam xam ngeen ni jamono yooyu ni ko Cheikh Abdoulaye di waxe nelaw guddi jamono yi sëñ Tuubaa amutoon mag ñi guddi dañuy fanaan jàng alxuraan ci kaw jàng xasaayit ci kaw mel ni mbott yooyu nawet jot benn benn guddi nag tubaab bi jabar jabar ji ne ko maarabu bi santé yi taalibe bi santé dafa may déranger léegi nag wutal ko fu dëkk tubaab bi xëy ñëw ci sëñ ne ko waaw sama jabar gi chante yi sa taalibe chanté da koy sonal da koy da koy la jël léegi kaay wuti foo dëkk sëñ Tuubaa ne ko foog ma jëlee woon foofa laa bëgg mooy foo ko yonent bi noonu foo tubaab bi ne ko nañ dem ñu dem mu defal ko mu defal ko titre foncier waaye sëriñ bi ci xel mi mu yor ak ak dimension bi ko suñu borom tolloo mu ne nañ ko wool nañ ko wëral fii am na ko moomoon cosaan tubaab tubaab bi moomu ko am na ko moomoon ci cosaan nañ wëri ko ñuy wër ba gis benn waaye moo ko sëñ bi ko ya mom fi mon ko waw fi sumay tool ma fi dan bay ñambi waye ganaw man ma bayatuma xalé yi léegi fonku ñu bay jëlal ma jox la sëñ bi ko wa nangu naa ko waaye toogal mu wolu suñ mbàkke jaxate rek sëñ am seru jaxate nga xamni ñoo bokku lepp bo mu am fukk fukki at juróom-ñeent rek ñu jox ko sëñ Tuubaa sëñ ko demal ci sama dal ba nga neen ma fa saaku ya fa ne nga indi ma ci ben saaku mu ne bindu ko ñuul sëñ bi ni ko yulli ko ñu ko muy ay saaku bo xam dafa ay lam lami gali xaaliss yo xamni ne boo jaay xaaliss bari la sëñ bi ni Modou Sylvé am lii maa ko jënd kër gi nga xam ne tey bu sëñ bi defuloon noonu damay wax ni da gis ku taxaw tey nii kii sëñ Tuubaa dëkk maa ko moom sama maa ma ko moomal waaye noonu la ko lewale jënd ko xanaa kon teraanga ji commencé na ñu liggéey kër gi ba ca déwén sa ca déwén sa di ama alsas ci la kër ga yegg sëñ Tuubaa toxu ca waaye bis bu njëkk ba fa too yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ko gane si ci weeru gàmm mu gane ko fukki fan juróom taalif na ci xasida mu yaqini ilal jannaati maa lay sa yuhmadu baytana zara ahmadu waaw yonent bi bi bi ngan gi jeexee ba mu dem sëriñ bi ne ah, lii kat kon am njàng la kon bis bu nekk am at la kon njaareem fukki juróom laa fi am muy fukki at ak juróom yi mu nekk njaareem kooku mooy taraga njëkk ji taraga mujj yi mooy jumaa yi njaareem nga xam ne jumaa ji sëñ Tuubaa bi mu koy ñu ngi koy xam ngeen ni bi mu nee ci géej gi benn takkusaan benn benn euh, takkusaan dafa julli ba noppi dafa dem dafa waaw dafa jekk dafa xëy benn bis wut jaaseem wut semiñam ak yëppam dugg ci àll bi daal di dem ci garab xam nga garab gi ba nga koy rek xam naa yëg na ci dugg ci garab dagg ñeenti bant yu mag benn bi muy mu teg ko ci mbaggam benn mu teg ci benn mbagg bi ci bu yenu ko bu ci mooy rek moo tax liggéeyam bii koy fay xamoo ko mu yore ko ñëw ba ci fi fi fi fi dalam nekk mu samp ñeenti banam mandargaal ko jàkk ngir buy julli kenn du jaar ci kanam bi muy julli ba noppi tàkkusaan tubaab bi ñoo ne ko la salaata huna walal islaama fii julli amu fi lislaam moom fi da nga yàq suñu carte bi daal di bëgg ñu wax yëlli sey ñëw yam ci daal di ñëw di xuloo waa ji ne ko doo ko dindi sëñ léegi tubaab bi ne ko da nga koy dindi yëlli sey ni ko doo ko dindi ñuy xuloo ba ba poñente sëñ tubaab moo ko nettali nee na ku ne poñe sa morom waaye wolof yi ñuy wax sax nee na mu may fàttali Sénégal waaye boobu lépp maa ngi taalif mu ngi taalif xasaayid gi mu tënkee rabbana axrijna min hadihi alxaarati zalimi ahluha waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasiran muy raditu anil mawla taala alladi rabba fuaadi wa axnaani wa akrim bihi rabba maanaam yow ñu ngi lay ñu ngi lay xatal nga naan yàlla kontaan naa bég naa bég naa maa ngi gërëm son borom bi nga xam ne moo ma moo ma tërbiya moo ma defal lépp ba muy taalif nag ba egsi ci بيت بي ماي باغا لو صلاتن ما سلامين بالي واصحابي سون بام نكو جبريل نلو سبرم لنغا تاخو نانا ماينا لا نياري جمعه تي سم ريو بن بي شدك بي وقت بالا لا كوي باي بي جيس بوريمي ديغا سانت دك مي وخ نياريم فالا لا ماي بنن موتا مو وادال بي مسجد رحبا موتا داي اسم نان ساق لغير الله فيما يومبا يمبا ما سا قلبي واعلى الجنبه يلا لما نقرون تي ما يمبا yàlla dindi na ma ko ba noppi yëkkatil ma ay sooroor benn bi Touba la bi ci njaareem waaye bu njaareem bi la jëkk a gis njaareem ci gàttal rek bi ñu koy liggéey ci 1917 18 moo dem bi bi bi émigré Massalikul Jinaan maa ngi koy wax sànq ma fii ma ne ko hasard amul ndax boo xoolee diggante 18 ak 19 1919 ba 2019 du cent ans muy ab siècle te sëriñ bi bërki dem wax na ni yu mel nii siècle ba siècle lay faral di am léegi jumaay njaareem jamono boobu la woon 1919 ñu ñëwaat ba 2019 ñu bi Masaalikul Jinaan waaw nga xam ni sëñ Tuubaa moom am du asaar amul morom 1919 ba 2019 léegi nag 18 19 la Cheikh Issa Diène tàmbali jumaa ji nga xam ni buñ sëñ Tuubaa dafa jox jël carnet jox sëñ Balla Fally Dieng ne ko taalibe yaay bind seen seen addiya jël kaala jox sëñ Manoumbe ne ko yaay bind mbokk yi léegi nag ñu baal ma sëñ Manoumbe moom bu xëyee tuuti lay bind sëñ Balla Fall ne day feesal ba jëlaat di meneen kaye sëñ Manoumbe ñëw ñu sëñ Tuubaa ko man jaay naa sant wi santatuma Mbàkke léegi Fofana laa sant waaw Fofana boo ko seetee Fatiha Falati Naasi mais Fofana de moom laa sant léegi sëñ bi nangul ko ko nga xam ne jumaa jooju Cheikh Manoumbe def na ci téeméeri junni ci jamono yooyu moom sëñ mënu bi moom kenn rek moom sël Cheikh Ibrahima Fall mu ay gaale xaalis la doon yónnee moom moom kenn kenn mu ko wàññi moom ay gaale xaalis ñu liggéey ko ba jumaa jee yegg jumaa jee bi mu ko say saal di liggéey nag dafa tàggu sëñ Tuubaa ne ko maa bëgg dem Turquie eh, maanaam Istanbul xam Istanbul moom moo ëpp jumaa ci àddina bi ma fa bëgg dem pour eh, eh, maanaam plan jumaa yooyu ma jël ci benn pour mën cee bi nga ma sant sëñ bi loolu Issa jërul dem Istanbul Cheikh Issa ne mënta ne ci guddi la ma sëñ bi tegal jumaa yi Istanbul yëpp mu tànn ci jama neex balaa boobu tey moom li <laughs> moom liggéey jumaa ji waaw nga xam ni lim naan àddina maa moom loolu moo moo ci mu liggéey ko ba li jumaa ji yegg kon sëñ Touba teraanga ji commencé na léegi résidence bi mu bi mu am ci àddina fii la ko amee muy jaaree jumaa ji mu njëkk a gis ci ay jumaam foofu la ko amee mooy écran mu ji doon wax وأنه ولي إبقاء وإكرام كون تي غات رك لولو ريزومي لا رك تي فيغا خامني جار لا في واي لي موجي رك موي سيغ توبا كوني خامنا ني موم لا نغي سي بن مي بن نيت بو خامني استوارام فيم جار موكو بيندل بوبام بو تي ني تي سانسي لا كوي بيند جار دكيم جار اك جار واي بيم ديم باي با خام ليكو في ديسي بريت موي عام حمسس حمسسين ان امسس وامسس ما تي تاريخ لوجي بيندو جي بن خاصيده xasida bu ñu ta dëggee ama woon seen doo ko gis ndax ci tamxarit gëpp weeru njëkk la wàcc liggéey waaye xam sës boobu daa wóolu ko yow sëñ Aliou Seye mu ñëw sëñ Aliou Seye ñëw sëñ Tuubaa bind aw kayit lem ko ne ko Aliou kayit bii na nga ko denc bu ko lemal ci nag bis boo demee ba gëstoo ma ci àddina boobaa may nga nga dem nga doo koo xool sëñ Aliou nee na keroog bi ñu dencee sëñ ba pare nag xelam ni yar ci kayit bi mu ñëw daal di koy ubbi fekk sëñ Tuubaa bind ci ama xuruji min ad-dunya ama wamsas at mi gën ci adina wuji sama borom wamsas lay doon ok tarikh na ba al bis wi gën adina sax at mi gën adina moy wamsas kon koku moy Serigne Touba kon tay mo waral tay adina monde entier daje fi ci bi nga xamni fi ñew mom jundum la ak ses xana ses personnes yi mi andal bi sañ ci dëkk bi mom jundum sax mom jundum mo doon ñew sax mbokk yi diko ba mujj bi mu ñëw di ko sanc si mu ànd ak 16 personnes di fi dëkk si 16 personne bu ñu demee bañ naan 6 millions ñooy daje fii par par at loolu sax loolu loolu yàlla yàlla barkeel na ko muy benn dëkk boo xam ne it croissance bi mu màggee amul dëkk bu koy màggee ci àddina ndax maanaam àddina ba mu kenn rek moo ci mas sanc ab dëkk mu màgg ba toll ni mu toll muy muy muy muy Ibrahima muy màgg yonent yi yonent yi yëpp dëkk bu dëkk yu noppi lañ dëkkoon dëkk yu sotti ba noppi ki ko ñaareel mooy sëñ Tuubaa sanc ab dëkk mu màgg ba tulli mu toll te ay doomam sax fekke nañ ko ak i njabootam kon nag lu mel nii ku ko am war ngaa war xam li nga am di ci def ay jàngat sam jamono bu nekk tamit kon nag ñu ngi laaj bi daf ñoo fekk ci coono yu méttee métti fekk ñu tamit ci waajaluñ ko ndax léegi rek lañ ma ko wax waaye ñi ñaan sëriñ bi yàgg fi loolu ànd ak wér bu déwénee tamit bu ñuy ñëw lu waaye yéene rek te bu koo jëf ci bis bi jëf ko li ci des xam naa bu ñu demee ci baas bi li ci des rek bu ci temps bi may ñu ñu àggale ko ci ndax bëggoon ñu waxtaan ci sant ndax bis bi bis sant la waaye du fekk sant mooy lan ak bis bi ndax borom sant leen ma yàlla la wax kon waxu ko noonu rek sànni ko ñu gis tamit xasaayit yi li ëpp ci li mu bind ci xasaayit sant yàlla la ci la ci jublu li ëpp ci xasaayitam yi xasaayit yi sant la kon nag incha allahu taala foofu la ñuy yemale waxtaan rek. di ñaan suñu borom tabaaraka taala Cheikh Mamadou Mountakha yàgg fi sëriñ Xadim Lo Gaydel yàgg fi sëriñ Moustapha Lo yàgg fi ñun ñëpp ñu yàgg leen fi fekk wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.